xamante ne moom moo nekk seenub euh, manifeste bi ngeen bëgg amal tey alors nan nga euh, jàngatee lu fait que euh, ñu jox leen autorisation bi yeexoon loolu waaw loolu moom tàmm nañ ko ah, c'est technique la bu état bi pour mën a pour mën a wàññi la mobilisation wala pour indi doute ci population yi parce que dafa am loonte léegi dafa feeñ population yi xam nañu que léegi quand la da ngay gis ne bu marché bi autorisé wul rek population yi du sawar génn mhm. donc plus ngay tardé dañ autorisation bi plus ngay ngay nga bëgg a impacter ci ci mobilisation bi mhm. et loolu dafay déjà à la base manifestation bi dafay ñëw un peu acteurs politiques dañuy jëmbat violence wala tout le monde veut la violence tey euh, si on demande aux Sénégalais ñëpp nañu génn mobiliser mhm. ñu def mobilisation manifestation bi mel nii c'est pour de manière pacifique dire à l'État que y a une majorité sociologique des Sénégalais wante ne ils sont opposés au troisième mandat. Mhm. et que ça ne sert à rien nga koy jéem a forcer. et c'est un dénominateur commun entre tous les acteurs politiques mooy que d'accord wuñu ci ñun ñoo nekkoon fii il y a dix ans jamonoy M23 ñun on était partie prenante de M23 mënuñu lu ñu bañal Abdoulaye Wade il y a dix ans tey ñëw di ko nangul président Macky Sall je pense que c'est ce contradictoire avec nous-mêmes et je pense que ñun ñëpp on était là-bas ñun ñu ngi woon manifestation place bi li ñu am yaakaar mooy que dix ans après duñ taxawaat foofu pour le même combat mhm. donc ça veut dire que y a quelque chose qui n'a pas changé pourquoi mhm. la responsabilité de la responsabilité de moo tax ñu ngi mëne combat bi c'est vrai mais bu ñu jógee ci lii war nañ aussi toogaat xolaat suñu bopp suñu biir laataan pour ñu xam ne que que lépp ñun la rek parce que tey président Macky Sall bi nekkoon ci place boobu bu jëloon jàngat yëpp xool ñi fa ñàkk seen bakken ñoom Mamadou Diop tey waratuñu woon a am débat débat bu mel nii. d'accord en tout on est obligé de parce que tout le monde se battra contre ce troisième nga dem ci manifester ba. incha allah dinaa fa dem. d'accord alors manifester yooyu noonu aussi lan lan mooy njëriñ solo si lan la mën a andi. comme saafara ci seen jàmbat yi ngeen di wax nii. mais mais mais déjà à la base mobiliser déjà à la base plateforme bi am je pense que euh, opposition bi gëj na am plateforme mel nii xam nga bu njëkk ba dañoon toog ñu ne par force ñun dañu war jël suñu doole boole ko ak PDS échoué na si locales yi échoué na ñëw ba législative ñu réussir am une intercoalition mais intercoalition bi ñu koy teg am na beneen fissure beneen parti bu ngeen dem créer aar. Mmh. aar Sénégal mmh. beneen coalition. tey c'est la première fois nga gis opposition bi bokk partagé benn plateforme. PDS bokku ci ah bokku ci parce que PDS ils sont ñu ngi seen cohérence je pense que loolu leen mënti waxal loolu leen mënti contrôle mu ngi seen cohérence donc ñoom mun woon nekk le PDS du président Abdoulaye Wade ne Abdoulaye Wade avait un trois droit à un troisième mandat euh, nga dem conseil constitutionnel jox leen seen autorisation ñu dem campagne ñu gagné leen. tey nga ñëw ne Macky Sall bi leen doon xeet di def la même chose nga bëgg xaar ñoom ñu nekk sa côté je pense que ils te loolu il faut ku nekk nangul leen ko. d'accord donc tey opposition yëpp ñu ñoom ñoo bokk benn combat bokk benn discours bokk benn taxawaay et loolu dafa am solo parce que dafa bokk toujours si exigence yi nga xamante ne Sénégalais yi dañ ko imposer à la classe politique seen aventure individuelle yi seen bëgg-bëgg partisan yi chaque fois bu ngeen ko indee de manière individuelle leen topp mais bu ngeen àndee créer cadre bu ñu wóolu rek on la preuve. expérience benn Siggil Sénégal ni ko sénégalais choisir woon accompagner ko local 2009 2012 ñu am promesse bu ñu def sénégalais yi on l'a pas respecté ñu sanctionné ñu choisir Macky Sall tey xoola plateforme bu mel ni Yewwi Askan bi nu mu amee adhésion sénégalais yi confiance sénégalais yi ba bi mu taxawee aucune coalition n'a pu exister exister autour ba quasiment indi woon nañ cohabitation mm. donc tey F24 c'est un cadre de de de mutualisation des moyens euh, de partage d'une même de lutte et puis day permettre aussi acteur yëpp ñu mën a de manière individuelle engagé wu sur une charte et puis l'histoire jurera à chacun ci taxawaay bi ngay am à donc nekk na lu am solo si si ci bëtu sénégalais yi nekk na lu am solo pour xeex bi ñuy xeex et puis daf ñuy permettre Sénégalais yëpp ñëw ànd ak ñun pour que bu mobilisation lu mu gën a am doole que le pouvoir en face l'opinion nationale internationale xam ne que les Sénégalais sont contre ce troisième mandat et puis chacun prendra ses responsabilités si maintenant certains font le choix d'aller vers le combat mais lu fi am ñoom ñooy responsable bi mais en tout cas ñun artu woon nañ d'accord mais euh, wax nga ni euh, euh, wàllum troisième mandat bamtu nga ko bamtuwaat ko mais F24 seen i xeex bokk na ci mm-hmm. li nga xam moom moo nekk ñi nga xam te jàpp ngeen ne ay détenu politique lañ. jàpp hmm. ngeen ñoom ñi nga xam te aussi. Hmm. tey ji dañoo am lu ñu teg seen ndodd ngir ñu bañ a nekk candidat. ñu teggi loolu yëpp. Hmm. donc euh, ngir teggi loolu noonu nag am na ci loo xam te ne nii tey jii seen euh, candidat. muy xalifa Sall mbiram leeragul. lu ko waral moo di euh, li tegu ci ndoddam. est-ce que tey jii ni mun nañ comprendre xalifa Sall. amnistie ko. bokk ci xeex bi nga xam te ni vraiment moom ngeen di xeex est-ce que ci la bokk ñu amnistie Khalifa Sall. ñun euh, xeex amnistie Aliou Sall et je veux que je veux que mu mu leer ci bëtu Sénégal yi mm-hmm. le combat mm-hmm. mooy lan mm-hmm. le combat mooy que Sénégal pour la première fois ñu am élection bu nga xamante ne président bi toog du bokk xam nga mooy l'avantage l'avantage mooy que président bi falu day nekk un choix de Sénégalais en deux 2000 dañoo sanctionné du Diouf en 2012 dañoo sanctionné Abdoulaye Wade et xëy na loolu bokk na ci li tax ñuy recommencer tout le temps les mêmes combats. Mm-hmm. pour la première fois on voit Sénégalais yi dañu am choix possibilité choisir un président sur un programme choisir un président sur des engagements clairs loolu moo tax d'ailleurs au niveau de Yewwi Askan Wi ci charte bi dañ ne woon ak bu ñu egsee élection présidentielle ku nekk xàll yoonam ku nekk mën nga nekk candidat li ñu bëgg mooy am ay pole fort mais au moins ñu liggéey ba am un accord programmatique boo xamante ne ñun koy bokk. Mm-hmm. parce que peut-être la charte fait office mais boo demee dëkk yu mel na Allemagne da ngay gis ne dañuy dem deuxième tour Angela Merkel par exemple du génn majoritaire mais day xool li ko nit ñi sanctionné certains l'ont sanctionné sur sa politique migratoire day jël parti yi nga xam ne loolu la ñuy xeex mu suñee ñu signé accord de coalition ñoom ñooy yore ministère yooyu les gens t'ont sanctionné sur ta politique économique da ngay jël ministère de l'économie et des finances jox ko ñooñu donc dañu demoon bante jamono dañu def accord de de convention de gouvernance gouvernance bi c'est négocié et loolu moo taxoon ñu ne yeewi bu ko nekkee kan nekkee candidat au moins ñu ñu am un accord day tax président bi falu dañ koy mën a juger su ses engagement bu nee man dinaa def lii wala engagement bi su ma faloo dinaa dinaa dindi article tam article ci li ma la posé question mooy maanaam baar euh, ki nga xam moo nekk Khalifa Sall ndax di ngeen di xeexaale ngir moom amnistie mais mais foofu laay ñëw engagement yooyu nga jël par boo jëlee nga ne damay dindi article quatre-vingt les gens juger sur pièce mais tey xalifa euh, Sall amnistie bi. mais mais amnistie Khalifa Sall président Macky Sall moo fi xëy kenn saxalu ko lem kenn joxu ko xaalis mu jékki-jékki rek génn nañu euh, demandé naa sama ministre de la justice mu réfléchir si moyens yu nga xamante ne ñi bokkul si si si si si champ bi te représenté ay parti na la ñu mën a bokkee si champ politique bii ministre de de de de de la justice ñëwee fi assemblée ñu ne ko mais yow président am na liggéey bu mu laajoon foo ci toll mun ñu man liggéey naa amnistie jox naa ko président liggéey naa euh, réforme article vingt neuf trente jox naa président président mooy tànn bi mu ñëwee fii plénière budget ñu laajaat ko ko du ñu sax ñoo ko laaj Omar Youm président groupe parlementaire euh, benn Bokk moo moo ko laaj mu ne ah liggéey nañu mais jàpp naa ni option bi président jël mooy mooy amnistie mais tey def na Sénégalais yëpp xam nañ ni kenn du amnistier nit ay fee la ñuy amnistier donc munoo wax ci amnistie bi tant que génnewuñu ñoom lan la ñu bëgg a def à partir de la ñun on aura à nous à nous prononcer sur cela mais tey. mais yéen ngeen ci aussi Abba. comment ça ah mais dégg hmm. suñu euh, Papa Salaay wax. Hmm. Khalifa Sall. Hmm. Euh, yëkkati ay kàddu ci digganteem ak Pape Alé ñu laaj ko mu modifier L39 L29 ak L30. wala amnistie moom mu ne bu ci am baax na kon kay déjà yéen moom lu ñëw baax na bien sûr gis nga lu ñëw baax na kon Aïdara non non Aïdara xam nga xam nga yow mënoo ma mënoo ma fekk ma nekk maire nga nga nga nga jiiñ ma tam ma toroxal ma tëj ma kaso mhm. révoqué ma dindi samay droit civique bi ma koy def xooloo lu rafet xooloo lu jekk xooloo lu légal xooloo lu légalul da nga xool sa bëgg-bëgg mooy man jàpp nga ni politiquement tollu naa fu nga xamante ne je jekku naa jege naa parce que sa ay sondage wane ne man su ma bokkee nga am problème doo gagné premier tour te suñ demee deuxième tour mooy xam nga ni tu perds nga jàpp ni aw ma droit man fii ci Sénégal en toute démocratie ne man en tant que maire de Dakar élu réélu am naa droit ne je suis candidat à présidentielle nga toroxal ma. donc tey boo toogee ba jamono dem bëgg na yow da nga bëgg boole si comité électoral bi mais lu tax ngeen bëgg ñu def transfert de moralité bi ci Khalifa Sall c'est-à-dire Khalifa Sall war toog di xool ah, ah, dafa am lu dafa am lu toll dafa am dayuwaay bu mu am ci biir réew mi. aussi dafa am ay xeex mu fi porté aussi. mais waaw mais mais dafa mel ni nag dafa mel ni euh, trajectoire bi mu jaar moom bëgguñu ko xool mais Khalifa Sall as-tu défendu des principes principe moo tax Khalifa Sall dal ko li ko dal ko. mais kon kon lu waral mu mu war a jóge ci principe yooyu noonu. ci amnistie ngir nekk candidat non non jógewul ci principe xam nga euh, mooy li may wax gars yi ma leen émission boobu xam nga euh, euh, li journaliste bi réussir c'est de le mettre en confort et et il a parlé comme si en toute confiance et tout. dafa jum ko non non jumul c'est-à-dire tey tey yow pourquoi ngeen bëgg Khalifa Sall supporter le poids de la moralité en disant que lii baax na lii baaxul mais ñoom ñoo ne dañ koy amnistier. ñoom ñoo ne dañ koy wala dañuy xool moom nu mu bokkee mais ñoom nañu indi li ñu nekk si kaw tam bu fekkee lu li ñu indi ñoom méngoo na ak ay principe c'est à lui de juger bu fekkee dañuy indi article vingt modification code électoral tant parce que bëgguñu sunu démocratie am benn plénipotent ëllëg koo bëgg éliminer éliminer ko et je pense que tey loolu la bëgg wax li mu bëgg wax du question que man je suis prêt à tout pour être candidat noonu la loolu bëgg wax loo alors que dans le fond waxul loolu et je pense que xam nga li li metti si wax ji euh, kii euh, Aïdara mooy que euh, je pense que Khalifa Sall mérite le respect xam nga je pense que tey am na ku ma ne waaw Khalifa Sall waru woon wax na bokk rek parce que dafa mel ni il est prêt à tout ma ne ko mais sax waaye bul fàtte ni Khalifa Sall dafa bokkoon Khalifa Sall dafa bokkoon Khalifa Sall était maire de Dakar maire de Dakar c'est le poste politique le plus puissant du pays après celui de président. d'accord am na lu wax. Mhm. Khalifa Sall était au cœur du dispositif. Khalifa Sall lan moo tax PS bi bi bi bi Khalifa amee problème ak Macky ñu croiser les bras di ko seetaan parce que nga naan yaa Khalifa Sall yaa ngi Macky yéen fi nekkoon doomu baay et tout tu étais vous étiez très proche tey bu wëlbati ko compte suñu yoon nekk aussi parce que les gens ont considéré à un parce que fii entre deux deux tours yi Wade Macky lu bëri lu nekk xew na fi yaa a des gens d'accord même pour jàppale euh, euh, euh, Macky mm-hmm. parce qu'il disait que il est jeune nañu xool nu ñu def Wade am un tuuti prolongation comme ça ñu rabaat carte gi ñu dem ko mu toog il est jeune il est là pour deux mandats ainsi de suite mais lu nekk xew na fii mais Khalifa Sall fait partie de ceux qui ont dit gor ca on avait dit on soutient le candidat le mieux placé donc tey ce débat là pour man n'a même pas sa raison d'être voilà c'est quelqu'un qui a toujours fait montrer ses principes sa constance sa cohérence bokk na si combat yi je pense que li mu mérité mm-hmm. mooy respect li mu mérité mooy confiance. d'accord postulat di ko wax plutôt que di ko juger ak ak wax yi mu fi indi moom te ne. Mm. que nga jubbu ko bañ ko ça fait mal. d'accord alors euh, gis nañ fi aussi euh, le président woote dialogue. Mm-hmm. Euh, ci kuréel gi ngeen bokkuñu ci bokk ñëpp. Mm-hmm. ne bokkuñu ci. Mm-hmm. yéen ngeen ne ci ngeen bokk loolu aussi nan lañ ko mën a comprendre. <laughs> mais one en démocratie. Aïdara on en démocratie les gens peuvent dire que on rejette le dialogue mais Khalifa Sall li mu njëkk wax. je suis d'accord sur le principe du dialogue la wax mm-hmm. mais est-ce que est-ce que si réflexe Khalifa Sall euh, Khalifa Sall bokkul ak acteur politique yi xam nga la c'est-à-dire quand tu as été au cœur du gouvernement mm-hmm. bu gouvernement 2000 wala 95 Khalifa Sall moo remplacé Idy Commerce c'est-à-dire quand tu as été au cœur du gouvernement c'est des moments sensibles à l'époque de la dévaluation wala de la crise mauritanienne toutes les grosses vraies crises qu'on a connues dans ce pays-là parce que gestion Abdoulaye Wade yéen à part le Joola wala truc mënoo fàttaliku yéen à quel moment on a connu de grosses crises nga jógee foofu nekk consultant di dem dans les zones électorales compliquées Banque mondiale c'est-à-dire fu amee Côte d'Ivoire Guinée nga dem fa mais cet homme-là ak expérience am ak jaar-jaaram ba pare nekk maire de Dakar pendant dix ans nekk au niveau des institutions internationales am looy digle nekk consultant di wax ni lii la ñu war a def mais tey est-ce que tu peux être fondamentalement être contre le principe du dialogue je donne un exemple pour quelqu'un qui a eu à travailler sur les élections en Côte d'Ivoire collection Côte d'Ivoire Gbagbo gis nga fu mu mujjee mhm. xoola tey Ouattara Bédié Gbagbo les mais ñoo fi nekk di waxtaan di conseil kii tëj dugal nañ ko là ko Blé Goudé ils l'ont bàyyi nañ ko foofu ñu acquitté ko bàyyi ko foofu ba mu wóor ne il a donné ñu doog ko cest dire aujourd'hui fa lañ mujjee ils sont en de travailler à la stabilisation de leur de leur démocratie. d'accord ñun ñun ñun ñun foofu mais est-ce qu'un acteur qui a ce background de 30 ans 40 ans de territoire politique et bu ne je suis d'accord sur un principe. war nga mën a xool kii pourquoi moo war a nekk wax waaw wala mu wax déet plutôt que que commencer ko condamner commencer stigmatiser. Mm. commencer ko traiter de traître de truc mais mais pourquoi. ñooñu ñooñu ñooñu noonu lan nga leen tontu ñi nga xam te ni euh, position bi mu jël comprendre ruñ ko ba am nañu sax ñu duppee mbir mi dafa trair mafia bi lan nga leen di tontu yéen. c'est c'est très difficile. Euh, c'est très difficile fan yi moom vraiment ah. dafa metti quoi xam nga man man soo bëggee dégg-dégg su may su may su may jël baatu subaab man je suis franchement des fois politique Sénégal léegi da ngay da nga ciy dégg ngay toog yow bu nekk ci biir nga ne est-ce que na ko quoi est que jar ko est-ce que na ko quoi parce que tu dis affaire yi amatul amatul sens quoi. Hmm. xam ma la wax. Hmm. Euh, tey Khalifa Sall kenn mësu ko jël à flagrant délit Khalifa Sall endossé na fi sax ay coow si turu Yewwi yoo moom yoonam moom nekk si. tey am na ñu bëri dañ naan Khalifa Sall mais qu'est-ce que tu fais avec de tels acteurs bokku leen âge bokku leen pratique politique. bokk leen jaar-jaar. pourquoi tu les accompagnes. mais Khalifa Sall leur dit mais lii mooy réalité opposition bi on compose avec eux en quoi nous sommes des traîtres en quoi wax sa xalaat si benn sujet donné daf lay def traître Khalifa wax na lu leer Sénégalais yi négocier wuñu ak Macky pour am des postes de ministre wuñ ko négocier wuñu ak Macky pour être pour son troisième mandat on est contre le troisième mandat mais fii réew mi toll. bu ñu indee ne nañuy waxtaanee réew mi sur tous les sujets wala si loo xamante ne amaguñ sax les termes de référence on peut dire que on est pour et le principe du dialogue et et bu fekkee loolu da nga ko wax ñu commencé la saaga commencé la xas dafa dafa dafa dafa métti moment mm. à moment les gens ont envie de dire que mais